maintenant voilà. pour revenir ci li ngay wax mm. eh, on est toujours dans rek le cadre de PASTEF une organisation boo xamante ne nii malheureusement malheureusement eh, dafa am lu ñu bëggoon a jaay sénégalais yi indi woon projet ne dañ koy jaay sénégalais yi à un certain moment am na ñu gëm projet bi actuellement fii ñu toll ñoom seen bopp xam nañ ne bari na ci sénégalais yoo xamante nii adhéré woon nañ ci projet bi génn nañ ci pourquoi parce que li ñu gis dalul seen xel ci lan lañ nekk actuellement nekkuñ ci lenn lu dul jéem a divertir sénégalais yi gis nga la xew Casamance. Mm. la xew Ziguinchor. Mm. dafa am bi ngay wax loo xam ne da nga ko sauté da nga ko fàttee da nga fàttee euh, euh, fàttali askan bi te ñu dund ko ñun ñëpp. mooy dañu jàpp ay enseignants yoo xam ne dañ demoon di déloger élèves yi di génne élèves yi pour ñu participer ci manifestation ñooñu noonu naturellement ñi nga xam ne ñoo war a gérer loolu noonu ñu ko loolu am na waaye loolu am na. cest à dafa am ay vidéo xam nga yooyu actuellement Pastef def dara di weddi ñun tàmm nañ loolu. Sénégalais enseignant bi biñ ñu biñ tuumaalaan tuumoo. tuumaaloon ni moom moo ko def. moom ne euh, wax na ni loolu amul. dama ne dama ne ki ñu àndal. mais xanaa kooku bu ne amul. dama ne yow mënoo taxaw ne loolu am na. xam nga man kooku noonu. c'est un c'est un c'est membre c'est membre de Pastef. da nga xam. ay non euh, mon cher. mais aussi da loo xamante ne yow. Euh, bon xam nga j'ai pas besoin de le connaître pour xam. que ne membre Pastef la non non pour xam ne membre Pastef la ñun ñëpp xam nañ ne membre Pastef la n'est-ce pas te yow journaliste xam nga ne membre Pastef la li ma bëgg a wax mooy aujourd'hui aujourd'hui moom mi nga xamante ne nii dafa wax ba pare daal di weddi li muy wax du loo xamante ni dafa ñuy jaaxal parce que dafa am un leader politique bu mu àndal boo xam ne man sénégalais comme yow sénégalais ak ñi fi toog di seetaan ñëpp amu ci kenn ku mës a gis mu tegal ñu dara ba pare ñu indi firnde yu leer justifié ko. mais est-ce que bonne foi kenn mësu ko def. mais est-ce que bo xaaral est-ce que bonne foi. bonne mhm. foi. Mhm. mënoo reposer wu par exemple nit su fekkee dañ ni moo def nangam. Mhm. nit ki taxaw ne man xaaral ba mu pare. nit ki taxaw ne man defuma ko est-ce que mënuñu wekku ci bon foi am. ngir gëm ko au lieu ñuy def ñu jéem a trouver la petite ah, mais moom laa la wax bon fois boobu noonu moo ñu indi lii ñu dal lii ñu dal aujourd'hui c'est-à-dire ci gëm Ousmane Sonko lam daan wax régulièrement saa yu ñu waxee dara ñu daan ne bon ok de bonne foi. nañ accepté mais loolu moo tax aujourd'hui ñu dund lii ñu dund on s'est rendu compte que ne mais dafa mës di wax lu dul dëgg askan bi c'est ça c'est ça le problème dañ ñoo habitué ci yooyu noonu. ci fee yooyu def dara mu leer naññ nga weddi ko bëccëgu ndara kàmm Sénégal yëpp di la gis mais ñaata yoon la ko def.